mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di balwaq ñëpp ñun nag ah ñu ngi nuy woo alxaaji Ibrahima Mbaye maay président APE école école élémentaire Gabriel Ndione depuis 1983

dana jàppoo nekk benn topp ci ginnaaw directrice bi ki fi njëkk nekk directeur nag ñu koy wax Momadou Diine Bokum moom moo ubbi école bi bi mu demee yàlla def mu retraité ku wax alhaaji wala ku ñuy wax Mouhamadou Abdoulaye Ba ñëw kooku nekk fi moo tam comme directeur bi mu demee monsieur Fall ñëw nekk fi directeur école moom itam bi mu retraité Ibrahima ture ñëw nekk directeur école yàlla dogal na nag kooku bi mu demee retraite kii fi nekk léegi di madame Fall ko wax Ndeye Aïssatou Ndiaye bu dëkk fii ci Asalim Sali waaye bi mu ñëwee itam. ñun comme wax dëgg yàlla ñun ak way juróom la woon mu jox ñu cër bu rëy ànd nag ak jàngalekat yi jàppale teg ñoom ñu nekk benn ñooy yëkkatandoo ndooy tegandoo fii ñëpp ngir seen liggéey nag am na sax école yoo xam ne am nañu ay jafe-jafe waaye ñun suñu école bi bokku ci bu dee affaire xaalis la ñoom duñu la xaalis ñoom lu ñëw dugg na ci école bi kon loolu nag dañ koy wax ba nga xam ni euh, kooku ñi nga xam ne ñooy yilif école yi ñu xam ni kat école Gabriel Ndione nii lay doxe man nag maa ngi fi nekk président depuis 1983 ilaa yawmi haazaa ba fii ni waxee yow nii école bi te nag du école bi rek la defar de même jumaa yii am na lu mu si def peinture na école bi daaw ren jii nag ñu am jafe-jafe ci duusu xale yi wax dëgg yàlla mooy liggéey bu bari nag waaye bi mu ko déggee dafa ne incha allahu dinaa ci dugal sama loxo dugal ci loxoom nag ndax ànd naa ñi ma ko bokkal ñëw def liggéey bu ko liggéey boo xam ni ñun fooge wonu ko noonu sax kon ñu ñaan Pape Doumbia moom ak ñi mu bokkal liggéey bi yëpp yan yàlla sàmm leen yan yàlla wutal leen école bi wax dëgg yàlla kontaan nañ si bu baax a baax a baax a baax a baax ndax li fi def rëy na lool ndax suñ ko bëggoon defal suñu bopp day jafe dunu ko man ndaxte xaalis la te yorunu ko moom nag def na ko ci soobaleem ngir yàlla ak njaboot gi te xam ne njaboot gi yëpp nag njabootam lañu wax dëgg yàlla yéen seen seen seen seen seen seen taxawaay rafet na li mu leen wax ngeen def ko def ngeen ba def sax loo xam ni raw na suñu jot kon yéen ñu ngi leen di kon gërëm bu baax a baax a baax su ngeen demee nga ni ko nag ñu ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax léegi ndax xam noonu nu nuy def ba liggéey ko te sunu xab kees matu ko nag mbokk wax ni papa ñoo ne ah ngi ci yàlla mën na def mu antu ndax Pape Doumbouya fii a jàngee te mi ngi def lu baax a ah, ba ma gisee nga xam ne ki ma war a gis man bi ma ko dëri si man mii di président ma gis ki ma ko war a wax wax ko ko mu ne ma yéen ko defaroon na ba pare ndax Pape Doumbouya bu koy yëg dina fi yebal ay ndaw ñëw seet si ko te dina ko defar. lii ma wax ko directrice mu gëmewu ko sax yéen defal ngeen loo xam ne bett ngeen nu waaye yen yàlla bett na xéewal bett ngeen nu ak xéwal yan yàlla bettal leen xéwal kontaan nañu baax a baax a baax li ngeen def nag dañ wax ni benn góor dañ ko ni defaru si lu mu ne mu ne defaru ngi si jat ci ban mu ne bu njëkk bi mooy yërëm gune li ngeen def ci la bokk bi des mooy suturaal jigéen bi def mooy warmaal mag yéen ngi ci nag yan yàlla taxawu leen kontaan nañu baax a baax a baax a baax ah wax dëgg yàlla moom ba ma waxee directeur bi dafa ni man sori naa dinaa ñëw nag waaye dinaa wax monsieur Faye mi nga xam ni moom ma fa nekkal mu taxaw ko taxaw nag mu taxaw bu rafet nag mi ngi ni toog ak ñi ma ko bokkal ñëpp kon monsieur Faye ñu ngi lay sant yow itam di gërëm di sant ñi nga bokkal ñëpp nag bàyyiwul ñëpp di nuyu itam nag gardien bi nga xam ni ah moo yore école bi ndax wax dëgg yàlla moom la moom la ñu chargé ni ko école bi yaa ko yore kon nag moom itam mu gën a góorgóorlu te gis xam ni li nga ñu fi liggéey. wax dëgg yàlla tuutiwul moom itam mu góorgóorlu si euh, euh, euh, liggéey bi wasalaam ngeen ba wax